Bienvenue sur Salam Vision. لك شكر إجابة بوداده وقلت لي بوداده لك شكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi nuyu sama bokki taalibe yi fi teew yëpp ak yi ñuy seetaan ak di ñu déglu fu mën a ne ci àddina si di ziyaara di ndokkeel Seex Muhammadul Muntaxa ci sahru safarul xayr bii nga xam ne dugg nañ ci di weeru sëriñ bi ci jataay bii ñu toog nag sama nuyoo maa ngi koy teg ci loxol sëriñ Saalihu ak i rakkam ak i bokkam ak i taalibeem muy njaboot Cheikh Mouhamadil Moustapha moom Cheikh Mouhamadil Fadil di siyaar yi sëriñ Abo mi nga xam ne moo ne ci bopp kër sëriñ Fadilu di nuyu bokk yépp di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii wax ji moom lu mën a gàtt la waaye nag wolof da ne ku mburu tuddub dëkk kon li waral la tàmbalee ca benn fan ba ba ca fukki fan yaa juróom-ñett murit yëpp war koy màggal mooy fa mu toll bi moo tax ñu di ko dàkk bis bii nag jëkk ci weer wi dama taamu woon ñu tudde ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mii ni ko sama sët bi waxee rek jubluwuma ci lenn lu weesu ñu jàngataat ci moom laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab maa kaana hadiisan yuftara sëriñ Mourou dafay jëmm joo xam ne li tubaab jànguma tubaab nag ngeen baal ma waaye li ñuy li ñuy woowee leadership leadership te boo ko wax ci wolof xaw ma nu ñu koy tënkee waaye du weesu njiit lu mat njiit da ko doonoon. jamono ji nag dafa laaj gone yi dooru jóg ñu jàngal leen sëñ Moodu ñu jël ci loo xam ne dañ ko mën a def bind du seen ñu di ko xool ni nit di yilife ak njabootam ni nit di yilife ay rakkam ni nit di yilife ay taalibeem waaye ni nit di nekkee ci ronu ay baayam ak i kilifaam yooyu yëpp da koo dajale te yoon wi laaj ko fi na jàngataat ko waaye réew mi laaj ko jamono jëppit laaj ko loolu moo tax ma tànn sëñ ma am ci moom tawféex yu bari yoo xam ne yenn yi samay jataay laa ak moom yenn yi ma am jataay ak doomi Serigne tubaa mu seeree ko Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Abdoul Khadir toog naa sëñ Abdoul Ahad ne gisuma ku ko gën a doon murit saadax sëñ Modou ku ko ëpp pas-pas sëñ Touba gën ko doon murit xawma ko gën a joxe waaye gën ko kere ba sëñ Fadilu génne àddina mënoon na ne naa nekk ba suba wala gannaaw suba waaye ci escalier jumaa ja la ko fekk ne ko dane moon fu ma la jox ko sa bopp ndax mooy sëñ Tuubaa kon nag maa ngi njabootu sëñ Fallu ngi te boobu denc ko sëñ Fallu lu war a royo ngoog moo ma nettali boppam ne ma bi sëñ Fallu woo sëñ Abdou Lahad léegi man sama cerey cere bàyyi jàmbur du ma ko miinal sama bismillah moo tax bu sam si daa sampin wér mu fanaan sëñ liñ ko jox lépp du ci laal dara ci dikk jox ko sëñ Fallu julli ajjuma da nga ko gontal bëri bi day fu sëñ Tuubaa ma sa def dara rek dem na fa te boobu sëñ waaj na ba jekk waaye da ko doon won nit ñi ne bu ngeen ma gisatul mooma sëñ Mudu ne ma bu loolu amee sëñ Abdul Ahad dane ma li ma sëñ Fallu digal digal kër ne fu sëñ dara sëñ Tuubaa ne fa dem wër naa ko ba dajal ko waaye yow laay tëjee loolu sa kàggu ne ko waaw loolu bëgg naa ci lool saam nee na waaye nag du def dara lu ma waxut sëñ Fallu ma yónnee ndaw sëñ bi fi saasa ne ko sëñ Abdu daa wax ne loolu yi nga ko digaloon tukki bi mu doon wër daa bëgg tëje ko fii ci sàmm ma di ci laaj ndigal mu ne waaw waaw lu fa ne bàyyi ma ko fa def waaw ah baña waaye bu dikkee nag dama fa fekk rek dama fa fekk nee <laughs> na bu dikkee ba jox sama addiya bay ab jàllaa bi la sëñ bi di yëkkati ne ma sëñ Moodu ma ne ko Mbàkke mu ne ma fetalu ñaari ngi mi ñu ngi ciy tooñ payu ci hmm. man damaa xam diggam ak bokk yi damay wax ne sëñ Fallu ko rafatale sëñ Fallu la yàlla may ay bokkam gëm ko ay nawleem gëm ko waaye loolu da ko a ay nawleem gëm ngaa dee te lu lépp li moom doomu sëñ Tuubaa rek ngay nangu boo génnee mën nga ko waat loolu yàlla doog ko may yii ngay wax yëpp moom ma ko nettali bopp man damaa amoon tawfeex ci moom maa ngi fàttaliku mel na mbokk moo xam ne dafa bëggoon soxna te soxna si jege siñ mudu lool Moussa Dieng mais xam na ki may wax ndax jege na ko lool ma dikk ko wax hmm, nag di leeral mbo mbo mbokk mooma fa mbokk ak alxuraan ak nii lay def ak nangam bëgg mu mu nangu wax ji tàmbali gudd rek mu ne ma Abdou Samad xawma ko yow laa xam fii loo fi bëgg am ko li bëgg rek ma defal la ko waxal ni nga ko bëggee rek yëm te lijjanti sax kooku moo nangam de waa jéew rek laa xam fii daal loo fi bëgg am ko toog naa fi yëruma dërëm bëggu jiw fekk ko ci këram ne ko ah man na Mbàkke damaa dégg ñu ne kiy joxe jiw sab taalibe mu ne ah sab taalibe ma ne ko damaa man da koy jiw wala da nga koy lekk man dama koy lekk léegi léegi léegi léegi mu ne waaw góor yaa set ñu bari duñ wax loolu de maxtaar woon ma diw mu daal di koy sant Jóob jox ko li mu bëgg ñaata nga bëgg ma ne ko ah, man de bu ma amee diitoon kemb du mu baax mu ne waaw waaw jox ko ko nu mu gën a gaawee waa ne ko fu mu ko bëggee ma ne ko fu gën a gaaw rek <laughs> mu ne ma ne Louga a ma ko bismillah nay tey ma daal xëy dem Louga ñu jox ma sama diitoon ma jaay ko muy 3 millions dikk fi koñ mu dafa jaar de gaañ <laughs> noonu noonu noonu muy jëflante gi ci zahir nag ne lay jëflante gi ci baatin nga xam ne da koy danga koy danga koy da koy càmbar nag ba xam ne sëñ Moodu mii nag du du du du sëñ Moodum kese rek nag dañ ko duy ba mu fees del te liñ ko liñ ne ci moom yàqu ko mu téye ko denc ko loolu ngay nettali moom ma ko nettali ñaari xase nga boole yow muy benn xam naa gaa ñu sonn nañ nag ci jataay bi waaye dama bëgg rek ñu jëriñu si nee ma am naar dafay ñëw boo xam ne dane sëtub si si Seex Siidi yële mm-hmm. ànd ak jaamam ñu njëkkee ma ma ma suñ suñ fël ne maa ngi leen dalal ne leen suba dinaa leen yeewi dinaa la jox sa addiya sa jàmb it naa ko jox li ma koy jox mm-hmm. ñu koy àllante seen ndaw rek dara amut mu ne suñ fël moomee de booba bu ko neexoon bu tibbee suuf si rek mu doon or mm-hmm. waaye benn dërëm fa naanu ko te dugg wuti fenn te bu sañoon li mu waxit du dañ suñ mudu ñëw mu ne ko ah sama bët xonq na de sama bët xonq na de sama bët xonq na ah mbaa kenn lu tax sa bët xonq waaw dama seex si di rek seen i maam dañ daan ñëw sëñ bi dañ jox addiye mu ñëw fi moom jàmm bi ma war ko jox ñaar fukki junne jox jox jàmm bi fukki junne yeewi ko te tey laa leen waxoon te dara ñëwul rek dara ñëwu fi dara ñëwu fi dara ñëwu fi ma ne ko mbàkkee ma ma jéggulu kon dem ci kër ga te ñu ne ah dem la waaye dara ñëwu fi dara ñëwu fi nee na ma dikk yëkkati loolee mu soxla boolewaat ca leneen dikk jox ko loola ba noppi ne ko li nga war a jox naar bi dee ngi waaye lii ki ko andi moo ko tuube yeesale ko pastéefam ak taalibeem ci yow. nee suñ fan la ñokkit fukki tànk yi daal di fa tappi bi mu yoroon tappi boobu bi nga wax naan lal na ma ko ne ba ma tëdd ci daal di daal di ko ne ko boo demee neel galas bu la neexee bañ a defati dara neel galas galas mooy jalas <laughs> waaw baatub galas ji loolu gën suñ fan daa wax naan ab dëkk boo fa amee mag am farak booy ba nga ne jalas mooy jekki rek toog waaw waaw loolu la sëñ Mudu Musaa ngi fi ngi hmm? bu ñuy laaj laaj sëñ Mudu Musaa bu muy yónni bu ñuy yónni yónni Basiru fal daan jalas jalas <laughs> ne ma sànni ko topp nag waaye bu dara waaye maa ngi lay xamal leen de mun nga mun a weexal nga mbët soo xam ne day ku ko weexal sa bët du xonqati mukk mu daan wax ne lu ngeen gis ma dogg ko doggul ko nit damay teg loolu sama kanam rek daal di koy wax automatiquement wax si fan li ñëw daal am la bëgg bii ngay wax ci suba gi dafa xëy si di andi addiyam te bett si fan lool mu teel lool nag waaw magum tukkuloor mu xëy suba teel nag rek fajar gi suñ fa la xaw a sàngu noonu julli ba noppi wér tuuti tuuti noonu mu jékki-jékki suñu nuyoo salaamaaleykum kooku waaye kooku mu ne Modou Modou Mbacke mu ne ko waaw dafa teel nag suba teel gi nuñ koy nuyoo nit dafa teel lool waaye mu tuyee tam ah kenn du ko def mag ah kon de noo ngi tuub dañoo indi sas bi rek million bi ngi dal ko def ci wetorndal weer du ngeganaay li arrière tuuti lu ma tuubee kon waaye addi sas bi laa doon andi a tax na waaye taxawal waaye ah jé dé taxawal jóg jot na waaye jekkil nee ma toog mu daal fab mu daal fab cere ji mu doon ndékkee daal ma koy buux ne ma acca waaye lekkal fas ci li nga bëgg acca ah. sa su na nga di ko koy indi ah fas yéene nga bëgg kay toogal kay yow yow mën ngaa toog nee na ma dellu nga àddi yéen Mbàkke man mun maa fas fasal ma rek ci fasal ma rek mu ne eh ceddo ak muus ak muus daal di fa am ñaan ñaan ñaan li muy ñaan teewlu ci ne ko mu lekk ba noppi la ca des mu fab ko yeew ko boobu ne ngodd ci ay yéeram yóbbaale kër kooku mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil doomi Sëñ Tuubaa yi gërëm nañ ko sët Sëñ Tuubaa yi gërëm nañ ko taalibe Sëñ Tuubaa yi gërëm nañ ko boromam mi mu doon jaamu gërëm na ko sallallahu alayhi wa sallam gërëm na kon nag ku mat di fàttaliku la kenn fàttalikuwut ku mel ni Sëñ Moodu ci jikkoom ci pas-pasam ci ak taalibeem ci dimbali taalibe yi ci bàyyi fi lu ñëpp mën a wane kon nag kooku jamono dafa laaj ñu jàngataat ko wone ko ba ñëpp roy ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala anta rabbi wa kun li مهديا وقلت لي Bienvenue sur Salam Vision.